ñoo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli di salmal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi nga xam ne yéenay topp seen chaîne IMTV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ñu ngi dellu ci seen numéro euh, numéro 4 ci Alfatawa fii ci seen chaîne IMTV euh, ci beneen numéro bu bees euh, di ci dalal Cheikhana al Oustaz ak docteur Mouhammad Ahmad Lo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 alhamdulilah cheikh naa kon ñi ngi am mbégte bu baax talal la déggal mbokk yi ne euh, Fatawa bis ni tey day ànd partenariat ak Dermalo TV nga xam ni day jàll ci Dermalo TV di jàll ci li nga xam ne mooy IMTV en même temps kon ku ko bëgg seetaan mën nga ko dàkk ci ñaari chaîne yëpp incha allah euh, laaj bu njëkk bi cheikh naa kii dafay wax ni dafa fase soxnaam ñaari yoon ñaari moom leer na nañ mais ñetteelu fase bi ñoom ñaar dañ ciy sikki sàkk ndax am na wala amul ndax ñette fase na am nañ fase ñetti yoon wala amul ñu ne su boobaa lan la leen di charia digal ko ñu ko alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi nga nag wàllu fase niñ koy faral di waxee ci fatawa moo la moo xam la cay cosaan mooy atte wàllu qada qada la waaye du wàllu fatwa fatwa dana ciy dimbalante rek ak di ci joxe ay orientation waaye la koy sottal dëgg dëgg dëgg mooy àtte jugement lay doon nga xam ne da ngay déglu ñaar ñëpp ndax nii mu laajee wax ne dañuy sikki sàkk léeg-léeg sikki sàkk googu la mu koy tuddee day fekk werante la maanaam ku góor ki da koy wax ne ko ñaari yoon laa la fase mu ne ko ñetti yoon la su ko defee amaana ndaw si wax ne ñetti yoon la am na ay argument yu wër yu wane ne fase ne ko ñetti yoon te waa ji mun ko weddi waaye mu tuddee ko sikki sàkk su la laajee nag rek ne la sikki sàkk la nga ne ko ah sikki sàkk de moom bu dee loolu moom du passé day daal di sukkandiku ci loolu daal di wane ne passé tàdduwut loolu moo tax ñu mel noonu faaw nga lu ñaar ñëpp bi biñ ciy joxe rek nga xam ne su wéroon ne sikki sàkk la parce que sikki sàkk li muy firi mooy waa ji ci boppam mooy sikki sàkk ndax moom passé nag wala passé wu ko waaye waaye yow nag ku jigéen ki newu ci góor a ngi daal koo xam ne moom wóor na ko ne fase na soxnaan ñaari yoon waaye ñetteel bi nag wóoru ko su boobaa dañ koy wax ne sharia la muy wax mooy lay cosaan mooy fase woo ko eh, maanaam ñàkk gee fase loolu yàqiin la te sikki sàkka bi moom mënut a dindi yàqiin eh, al yaqiinu laa yazulu bi shakk maanaam sikki sàkka mënut a dindi loo xam ne yàqiin la su boobaa dañ koy wax ne sëy ba ma nga fa ba ba ngay am yàqiin ci ne fase nga ko su ko defee loolu doon doon tudd passé waaye nag liñ leen di orienté mooy ñoom ñaar nañ àndandoo toog fi kanam benn boroom xam-xam expliquer ko li xew dëgg dëgg dëgg su ko defee mu mën leen a àtte au lieu ñu di leen jox benn fatwa naam jazakumullahu xayran cheikhana laakar naa laaj boobu leer na ñaaru laaj bi ki dafay wax ne dafa dafa lemoon benn xaalis ci benn waay ñu d'accord ñoom ñaar ne ginnaaw at la ko koy fay maanaam foog mu at bu at mi jàllee mu fay ko ko diggante bi waajam leboon xaalis ba waaja faatu moom ki nga xam ne mooy borom bor bi nee na dafa bëgg a fay waaye xamul kenn mbokki kenn ci waa ji nga xam ne moom la leboon xaalis pour mën ko koo fay te moom pare na pour fay ko ko ndax date biñ joxante woon jot na muy laaj su boobaa lan la ko charia di digal pour mu def ko. jépp alal joo xam ne mu ngi ci loxob nit mu wóor ko ne moom moomu ko. kon na xam na ne alal ji moom du alalam waaye it keneen moomu ko wala su fekkee keneen ki ko moom am na waaye munta àgg ci moom ba jox ko ko xamul fu mu nekk bu dee ku génn àdduna ay ndonoom xamul fuñ nekk ci àdduna kon dañuy wax ne loolu alal la joo xam ne nekkatu ci loxoy doomu adama alal ju nekkatu ci loxoy doomu aadama ju nekk nag day dellu ci ki nga xam ne mooy borom alal muy sum borom tabaraka wa taala wa alal yàllaa ko moom su ko defee alal jooju nañuy def benn ñu am benn organisation boo xam ne dafa tudd baytul maal su fekkee charia mooy attewu wala tuddul baytul maal waaye tudd na yeneen i tur ci yi nga xam ne mooy organisme yi am ay sunduqul awqaaf wala wisaaratul awqaaf wala sax sunduqu zakat wala yu mel noonu nga xam ne day day représenté askan wi fi biir bérëb nga xam ne lu fa tab bi dañ koy delloo ci askan wi ñu jariñoo ko su ko defee day jël montant boobu dem dugal ko foofu waaye balaa àgg ci loolu nag war naa def effort bu nekk pour xam waa jooju faatu fa ay bokkam dëkk. te la jaadu woon mooy ñuy jëflante ci alal ñu nekk di bindante ci ay bor. war na koo jox numéro téléphone am war na koo jox suma ma la ban numéro téléphone laay woo. kan mooy sa mbokk kan mooy ko la jege fan la nekk yu mel noonu yëpp ñu xam ko. ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk mën naa faatu. te ku ci faatu ku nekk xaq jooju daa war a dem ci boroom. te suñ ko xamul day jafe. kon nag su boobaa la ko sës rek. ginnaaw amuñu benn adresse suñu kenn ku bokk ak moom te yaakaaruñ koo gis te def na effort am bi man bépp ngir xam waa kuy mbokkam mënu koo xam kon la ko sës rek mooy delloo ko ci. keesi eh, autorité yi fi nekk. jox leen ko ñu delloo ko ci biir askan bi kon foofu dafa mel ni bu ñu la déggee. leble bi ni doxee ni doxee xam na aw njuumte. waaw ci ñàkk koo bind ñàkk jël ay seede ñàkk jëlante ay numéro téléphone. dëgg dafa jaadu kon ñu koy def. maanaam boo gisee laaya ji gën a guddi ci alquran karim di wax ci wàllu bor mm-hmm. ci wàllu alal lay wax waaye bor la jiital yaa ayyuha alladina amanu ida tadayantum bi daynin ila mm-hmm. ajalin musamman faktubu mm-hmm. na ngeen ko bind jooji lu rëy la te am solo mooy ñuy lebante bor ñu nekk boo xam ne borog fay la dañ ko war a bind wutal ko ay seede bu amee ay charte ñu bindaale ca charte ya kañ la koy fayeek lu mu koy fayeek ndax day avancé ndax day joxe lépp benn yoon rek su fekkee gisul kii kan lay gis ak yooyu yëpp daa war a nekk ci biir ci biir kayit bi kon njuumte am na ca dëgg la waaye nag àq jàmbur la joo xam ne mi ngi ci loxoom te moom itiraaf na maanaam nangu na ne alal ji moom moomu ko te it da ko war a delloo borom te it mi ngi koy jéem delloo borom waaye xamut fu mu ko yóbbu kon solution boobu rek moo fi sës alhamdulilah alhamdulilah jazakumullah xeyran na yaakaar naa laaj boobu it kon borom ko doon laaj leer na ci moom ñetteel laaj bi ki dafay wax ni dafa am ay bor yu bëri tege ci kaw dem na ba àgg ci ay factures yu mu war a fay mënu koo fay ay arriérés location yu bëri yoo xam ne war na koo fay mënu koo fay ba toll foo xam ne daanaka dañ ko war a génne léegi mu ne ndax dem leb ci banque nga doonte riba la ndax dana jaaru ci moom mu jàppee boppam koo xam ne dafa toll ci daruura ndax dafa am ay boru arriéré ay boru facture yoo xam ne su ko fayul génnee ko kër gi xej na ci ndax su boobaa mën naa def loolu mën naa dagan ci moom. déedéet riba moom nekkut loo xam ne benn situation mën naa am bu taxam nit ki di ko lekk maanaam lekk riba mënta am joxe ko ñu di ko lekk it mënta am kooku ci sharia moom bunt la boo xam ne dañ koo tëj. riba ci bakkaar yi gën a rëy maanaam muubiqaat yi ci la bokk nga xam ne mooy bakkaar yu rëy yoo xam ne moom dañuy dugal nit sawara wala yaasu billah su fekkee borom tuubu ko delloo xaq yi. léeg-léeg am ñuy jéem a xiyaas ci wax ne kat nit ki ci dem ba loru xiif di bëgg a dee wala yu mel noonu may nañ ko lekk médd te médd dafa xaraamoon kon su demee ba nekk situation bu mel noonu euh, war nañ koo may mu mën a lekk riba wala mu joxe riba ñu lekk ko waaye dafay lu bokkut médd benn kii dafa xiif ba dee lay bëgg a def hmm. kii situation bëggut a dee hmm. waaye day bëgg ñàkk fu mu dëkk hmm. ñaareel bi médd day loo xam ne kenn moomatu ko maanaam du alali nit riba alali nit la maanaam li ngay lekk xaqi jaamur lañ dajale jox la ko nga di ko lekk te mën naa doon xaqi nit yu bëree bëri sax maanaam riba banque ci li yées ci ci la bokk parce que kenn nit ki ngay jëflanteel ngeen di def muraaba maanaam di jëflante ci riba xaqi kooku wala muy lekk sa xaq nit ak nit la waaye riba dañuy jël alali jaamur yi nit ñu bari mën naa ma téeméeri nit wala junni nit lépp seen àq ji jox la ko nga yanul leen àq boobu ëllëg kooku moo tax mooy bàkkaar bi suñu borom tabaraka wa taala tudde ab xarb fadano bi xarbin min allahi wa rasuli kon kooku mooy riba lu mat a wattaliku la amul nécessité wala darura boo xam ne day tax ñu wax ne nit ki mën naa jëfandikoo riba na jéem a seet beneen solution seet ku ko lebal ci lu lew mu fay ay borom su ko ta am ñu génne ko suñ ko génnee mu pexe nit moom faaw li fekk mi ngi dund dana am fu mu dugg dana am itam lu mu lekk ala kulli xaal borom bi tabaraka wa taala la mu dogal ci moom day am te it eh, nit ki bu demee bay luyee hmm. wala muy jëfandikoo lu mu mën a doon hmm. day jëfandikoo lu tolloo hmm. ak lam man lu tolloo ak lam booy luyee fekk yow yaa ngi am salaire boo xam ne cinquante mille francs la vingt cinq mille francs yi da koo nar a dunde vingt li ngay luyee bu mu ëpp vingt cinq mille wala bu mu ko mat sax su fekkee dëkk ba nga nekk lu mel noonu amul toxal dem ci beneen dëkk seeti loo xam ne lu yomb la bu loolu lépp kii àllu yàlla bi yaatu na. néew par force nit ki day am kër day dund ci nangam day dund ci nangam. su fekkee sa liggéey dafa toll ci lii daal. seetal lu tolloo loolu ngay dundee noonu soo ko mun taam xam ne situation environnement boobu mu baaxul ci yow. nga bàyyi boobu dëkk dem ci biir ba ba ngay dem ci àll bi. Euh, gor sam ñax defar sam néeg dëkk fa di bay sam bay di ca dund yàgg sa njaboot jar na ko loolu moo gën a woyof ci yow ngay lekk riba foofu sax est-ce que duñ wax ne Cheikh Ana ki nga xam ne moom dafa ñàkk ba mënta fay location hmm. am ay arriéré bëgg ci dolli bëgg a lebi banque te buy fay dañ ko ci tegal intérêt. est-ce que foofu sax du gën du xaw a gën a. moom loolu mu wax noonu dañ koy def. Mhm. maanaam nit ñi dañ koy def. Mhm. loolu moo tax mu di ko laaj. parce que mhm. gis nañu koy def parce que ñële dañ laa nar a génne. te banque bi boo demee jox leen ay sukkandikukaay wala ay garantie. mën nañ laa daal di fayal bor yooyu nga continuer nekk ci kër ga. su ko defee da nga ne sama situation baax na mais fekk situation bu baaxul. maanaam lor kese lay la lay jural. banque moom boo xasee dugg ci seen bor daanaka ci njaam nga dugg. da liggéey di leen jox rek. loolu lay noonu lay firi. te ñoom amuñu maslaa bis boo leen fayit moom. la nga leen garanti woon moom dañ koy daal di jaay ci saa si. rek am lu ñuy jaay. te it boo amut lu ñuy jaay duñ la la lebal. boo amul dara duñ la lebal. alhamdulilah jazakumullahu xayran cheikhana yaakaar naa laaj boobu na ci borom. laaj bi ci tege kii mu sëy ak soxnaam ci bés boo xam ne aayewu fa feneen la aaye ci beneen soxnaam. sharia dafa santaane maandu. Mhm. ci nit ki ak ñi muy denc. Mhm. su fekkee yàlla dafa ne wa in xiftum allaa taadilu fa waaxidatan aw maa malakat aymaanukum su fekkee ne da ngeen a ragal ne. Mhm. munu leen a maandu yi nee na yem leen ci benn. maandu nag buñ ko waxee mooy itaau kulli fi xaqin xaqahu kenn ku nekk nga jox ko xaqam. ay dafa bokk ci tartibaat yi nga xam ne sharia daf ko bàyyeeg idaarab kër gi maanaam mm. direction kër gi ñu dëppoo ci luñ koy tegee mm. boroom kër gi day waxtaan ak sox ay soxnaam moo mm. xam ñaar lañ moo xam ñeent ñu waxtaane ay googu nuñ koy tege bay dëppoo ci su fekkee dañ ne ñaari fan fii ñaari fan fële ñu dëppoo ci loolu te respecté ko bu dee dañ ne bis fii bis fële ñu respecté ko bu dee ñetti fan ñetti fan ñu respecté luñ wax ba d'accord ci daal nañ respecté loo su boobaa seen xaq foofu lay daal di tegu. du dagan mukk nag moom muy xët chart boobu. day xaraam ci moom. lu dul ci condition. su fekkee ne ñaari soxna la yor benn bi mën naa toll ci diggante boo xam ne eh, munta ànd ak moom. Hmm. maanaam charia mayu ko muy permettre ko muy ànd ak moom benn ci wér-gi-yaramam. Hmm. wala situation bi jigéen di gis mu toll ci di ko gis mhm. su lu mel noonu amee mu dem ba nara a loru moom ci boppam mhm. ragal fitna ci boppam mhm. su boobaa mën naa diisoog soxnaam si mu lebal ko wala mu may ko lu ci nekk mën naa am mën na ne ko amul benn problème dem mën ngaa dem ci kooka su ko defee mu dem foofu wala muy ba soo demee foofa de da nga may fay bu ma weesoo yi ma nekk su ko defee bu weesoo yi mu fay ko waaye li mu sañut mooy jékki-jékki xët ko rek pour bànneexu ba kanam daal di dem foofa dem ànd ko kooku moom du dagan day xaraam ci moom. laaj bi mujj bi kon moom lañ toll mbokk yi ci dafay laaj mu ne dafa am ay doom ñoom ñëpp jàmbaar lañ waaye da ci am kenn koo xam ne dafa mokkal alquran ba pare góor lool ci diine mu yéene woon jox ko benn terrain may ko ko ak benn xaalis boo xam ne dafa koy jàppale xëy na xëy na pour mu def fa daara wala deme demee noonu la te du ko defal yeneen doom yi mu ne ndax su boobaa dana dagan ci charia. sariya lim santaane mooy maandu ba ci diggante ay doom ndax nag ci waxi fuqaa bi doom yooyu ñi ci jublu mooy ñoo ne ñu majeur gul lañ ay ndaw wala ñoo xam ne suñ demee ba nekk ay mag ala kulli xaal lay cosaan mooy maandu xadiisu Bachir bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Nu'man ibn ci boppam moo bëggoon a def loola Nu'man ibn Bachir doomam moo nettali xadiis bi waaye baayam moo ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man am ay doom <laughs> ñenn ñi ma am lu ma leen bëgg a may mu ne ko ndax sa doom yëpp nga bëgg may lu mel noon mu ne déedéet mu ne ko ashhid ala hada gayri seetal keneen ku ko seede beneen riwaaya bi la ashhadu ala jaw <laughs> ne ko kat man ak ak du ma ko seede <laughs> kon ñàkk gee yemale ci boppam ak jéng la maanaam ñàkk maandu la ay doom boo leen di may da leen di may lu yem loolu moo tax li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne bu dee maye góor ak jigéen ñoo ci yem maanaam ñooy tolloo du du bokkul ak miraas miraas ñu naan góor ñaar jigéen benn déedéet buy maye moom ñëpp ngay jox ndax daf nekk ali kulli wala dika manaxta misla hada ndax mboolem sa doom yëpp nga may lu mel nii mu ne ko déedéet mu ne ko kon baaxul kon mboolem doom yi su fekkee day maye muy góor muy jigéen lim jox kii moom lay jox kii lim jox kii moom lay jox kii maye nag buñ koy wax ci sharia foofu mooy mu toog ba mu yàgg mu xool ci alalam wala ci moomeelam loo xam ne daf ko fas yéene maye waaye bokkut ak xam ne dañuy dund situation nit ki mën naa feebar nga faj ko fere ci moom lu cher kenn du wax ne loolu nga ko faje paawu nga jox doom yi ci des yëpp lu toll noonu déedéet waaye doom yi ci desit am nañ droit bu ñu demee ba feebar ñoom itam ba faj leen comme ni nga fajee ñoom ñu fekk yaa ngi koy man kon daal yow euh, diggante boobu lépp loo xam ne loo man la te doom aajowoo ko mu nekk urgence bu munta ñàkk kooku am na droit ñu defal ko ko moom su ëllëgee keneen amaat urgence ma doon ñu defal ko waaye du caagi ni jamono yi nga koy defal kii da koy séddale ñëpp lu toll noonu bu dee li mu toog ba mu yàgg mu koy coobarewu di ko joxe lii dama lay def mooy xaalis ba dama bëgg joxe doom jooju lu mu ko bëgg a bëgg ak lu mu góorgóorlu ci jàngum alxuraan. du tax mu koy xëy ni dama koy may benn terrain te dama may ñi ci des ay terrain su boobaa loolu ak dëgg lay doon. dëgg la kooku alhamdulilah yàlla defal na ko tawfiq mi ngi ci lu baax yàlla na ci ak jub tegu. Eh, waaye nag du tax mu sañ ko defal loo xam ne du ko defal kenn. sañ na nag jamono yi mokkale alxuraan wala yu mel noonu mu nit ñi ñu ñëw ñu teew mu teral ko. doom yi teew mu ne ah diw sàngam kat seen rakk la wala seen mag la mokkal na alxuraan tey def nangam bisu tey bii moom lañ rayal nag bi wala xar bi wala nangam yére yu yi moom lañ ko jëndal nag pour soññi ñi ci des hmm. ñoom it ñi jéem a góorgóorlu ci lu mel noonu hmm. sañ na ko bu dañ ne ko li nga defal kii da koy defal kii ndax dafa am situation bu ko waral comme su feebaroon ñi di ko faj ci lañ koy féetale hmm. waaye toog ak sa sago bu yàgg daal ngay séddale nit kii dama gënal ci ñoom ndax nii la mel kon dama koy jox lii déedéet loolu moom seet na boobu jazakumullahu xayran cheikhana kon ñu ngi dellu di gërëm cheikh bi bu baax ci euh, émission bu am solo bi ci fatawa ci tontu laaj yi yaakaar naa ñi nga xam ne ñoo posé woon question yi dinañ am mbégte yaakaar naa seeni laaj leer na su ko defee numéro bii di affiché ci suuf écran bi képp koo xam ne am na laaj mën na ko yónnee foofu su ko defee dinañ ko organiser 640 77 643 63 00 kon ku fa yónnee laajam rek incha allah dinañ ko jël euh, dugal ko ci li nga xam ne mooy émission bi selon par ordre de priorité ak laaj yi ni ñuy dikkee. pour WhatsApp lay doon. ci WhatsApp lay doon waaw ci WhatsApp la waaw. alhamdulilah waaw ku ko yónnee ci WhatsApp bi rek moo xam hmm. bind la message bind wala mu nekk vocal. Hmm. su boobaa dina baax. bu nekkee vocal it nag mu bañ a gudd lool. ay vocalu hmm. 15 minutes 12 minutes day xaw a yéeme. wala boo naree déglu lu bëri dana xaw a doy waar kon bind bi wala vocal bu yem. posé question jarul sax wax sa tur ak foo bokk ak incha allah dinañ ko jël. mbind mi mën naa nekk dina jàll nekk français waaw incha allah. ñu ngi leen di ñi nga xam ne yéenay doon seetaan émission bi IMTV Fatawa numéro 4 ci biir mi ak ci bitim bi di ko suivre ci IMTV ak ci Dermalo TV ñu ngi leen di jaajëfal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa wa alihi wa sahbi Mm-hmm.